ci dunduk jullit jar na waxtaane lool ci pénc mi jar na di fàttaliku saa su ne mu tax bu ñu duggee weeru janvier tàmbali ko nu nafaraat ko nafaraat ko ndax jullit noonu lay def fi ne ci fajar gi ñu ngi jàng alfaatiha ñaari yoon jàng ko ci suba gi ñaari yoon timis ak gee bu ci nekk dañ koy jàng ca kaw ñépp di ko dégg waaye teewul bët bu set ñu baamtuwaat ko te saa buñ ko baamtuwaatee rek déggaat ca xamewaat ca luy wees démb bi ñu yëkkati jataay bi nag nu tolloon ci guddeeg bëccëg ak seen aylantoo gi ixtilaafu leyli wa nahaar ku ku ku aye boo fégalee jox sa moroom la sunu borom ne loolu la ayatin li ulil albaab ñi am xel ñépp ci war a waaroo guddeeg bëccëg ñi am xel ñépp ci war a waaroo lu màggat ñoo la tax a màggat lu ràpp ñoo la tax a ràpp kere bi ñu taalee télévision seen ñu def ci euh, photo sunu mbokk ma sunu xarit ba Sidi Lamine ba noppi bind mille cinquante daal di bind deux mille dix-huit loolu mooy temps bi mu fi def bi nu ko xaymaa mu nekk juróom benn fukki ak juróom-ñett gisaan mboolem ko seen muy dox ci kaw suuf it nattal nañ ko lu toll noonu waaw waaw sunu mbokk ma Zeynabu ak ñi fi jaar ñépp mënee leen lim loolu la ayaatin li ulil albaab ñi am xel ñépp a ci waaroo ma wax démb ne woykat ba daa génn ci këram rekk jàkkaarloo kuy tënj mu gis ni ko mbedd mi seetaane waaw jëkkër ji mu amoon dëddu na te na ñaari weer ak juróomi fan dese ñaari weer ak juróomi fan yu jëkk ji daan wuti di ko yët amul ku ko wuti di ko yët ba noppi waa koñ bi seetaan ko kere bañ ko jaale see jaxal ko lañ fa gëj kenn ñëwatul seet si ko ndeysaan te diir boobu <coughs> ngeen baal moom diir boobu mu nekk mënu ci am jëkkër ndeysaan allahu akbar loolu ci koñ yi léeg-léeg mu am mu di ko tumuraanke lool ndeysaan woykat bi dajeeg moom la gis ko ni muy doxe mu ne laa xaytuhaa laytanii maa kuntu alqaaha tamshi wa qad athqala al imlaaqu mamshaaha waaw mu ne daje naag moom di dox muy ñëw muy dox di ñëw mu ne waaye su xamoon ne bu jaara ca mbedd ma ma dajeeg moom meneen mbedd lay jaar ndax li dal ndaw sii te moom mënu ci dara te waa koñ bee ko seetaan mu ne athwaabuha rafetun yëre yim sol yëpp ràpp na waaw yére yëm sol ràpp na war a jula xaafiyatun na tànk ya dàll nekku ca wa damu tusrifuhu fi lxaddi aynaaha nee na deret rongañ yaa ngay ne ca lex ya te rongañ ci lex ci ñaar la métti mooy rongoñu jigéen ca lex ya ak rongoñu gone ca lex ya di moo mu tax artiste yi léeg-léeg di ko di ko def deseneel la jigéen ju rongoñ ya nekk ca ndeysaan lex ya ëpp naa def wa damu tusrifuhu fi lxaddi aynaaha waaye lim ci teg nag mooy karrul jadiday ni al jadiday ni foofu mooy guddi gi ak bëccëg bi bu guddi gi songee dem bëccëg bi song ko dem guddi gi ñëwaat song ko dem bëccëg bi song ko dem ba ràppal jàllaabi bi nga xam ne moom la ko jëkkëram jëndaloon ndeysaan wan shaqa asfaluha ne na jàllaabi bi ci suuf xotteeku na wan shaqa alaaha ci kaw xotteeku na waaye mbokk yu guddeeg bëccëg noonu ayaatu li ulil albaab ñan ñooy ulul albaab alladina ñi nga xam ne ñoom duñu bàyyi seen temps yaskuruna la xiyaaman ña nga ca wa quudan ña nga ca wa ala junubihim ña nga ca waaw waaw cëp allahu akbar yaskuruna allah dañuy fàttaliku yàlla verbe présent la def professeur xiyaaman wa quudan wa ala junubihim ñoo xam ne bu ñu bu ñu taxawee seen xelan ca yàlla bu ñu toogee seen xelan ca yàlla bu ñu tëddee seen xelan ca yàlla waaw du ci jóg mukk tabarkàlla moo tax bu ñu taxawee bay dugg ci toilette wala yooyu am na lu ñuy wax bu ñu toogee am na lu ñuy wax bu ñu tëddee am na lu ñuy wax ca la ñu yem ne mukk wa yatafakkarun wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard di xalaat ci bind gi yàlla bind asamaan bind suuf bind la ci kaw suuf ak la ci diggante bi moo tax fu ñu ko xalaatee rek nga dégg ñu ne rabbana maa xalaqta haza batila bindoo dara ci neen subhaanak faqina azaba naar rabbana ñaan de man tudxilin naara faqad axzayta rabbana innaka man tudxilin naara faqad axzayta wa ma li zalimina min ansaar rabbana innana samicna munaadiyan yunaadi lil iman fa amanna bi yunaadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna bi rabbana faxfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'aatina wa tawaffana ma'al abraar rabbana wa atina ma waatna ala rasulik wala tuxsina yowma alxiyaamati innaka la tuxalifu lmiaad mbokk yi kon temps mooy diir bi fi nit di am ci àdduna si temps mooy li la sa montre di joxoñ nga xool ko mu jox la six heures neuf wala dix jàpp onze yaag moom ba ca ëllëg sa mu joxa ci la ko temps mooy heure bi daaw bi ñu fi nekkee bis bi tuddoon le 2 janvier 2018 la bis bi tuddoon daaw daaw jéeg mu tuddoon le 2 janvier 2017 daawaati jéeg mu tuddoon le le 2 janvier 2016 ren mu tudd le 2 janvier 2019 bi ñu jox mandat mi monsieur président ak ren boo waññee xaat mu mat juróom-ñaari at tabarkalla candidat yi jóg nañu ne ñoom it dañoo bëgg ñu jox leen ñu def juróomi at ñu ne seen juróomi at yooyu nangam nangam ki ci jal bi nee na moom it nañ ko joxaat waaye ñiñ jox ak ñiñ xañ ak ñëpp ñëpp temps rek lay lay na tekki laa yastaaxiruna di mën a ku jeexal dem tabarkalla nu bàyyi xel ci temps boobu ñi nga xam ne ñooy société civile ñi nga xam ne ñooy politiciens yi sëriñ Cheikh tabarkalla dongo yi ñëpp yëg na temps rek la fii lay tàmbalee fii lay jeexe maa la ko fii lay tàmbalee fii lay jeexe tabarkalla moo tax lu am am solo la professeur damay ñëw ci tomb bu njëkk mooy yitte ji alxuraan jox temps ak yitte ji sunna si bi sallallahu alayhi jox temps waaw yitte jooju alxuraan jox temps ak yitte jooju sunna si bi jox temps ku leen jàngoon ñoom ñaar xayma leen danga jox temps lu bokkut ak leen ko jox tey mbokk yi nogo ya fi dàq yàq temps tegu ba ñi mel ni moom <laughs> waaw yàq temps mu ngi ci kanam incha waaye daal alxuraan jox na temps yitte joo xam ne joxu ko daanaka leneen lu dul moom waaw sunna si yonent bi noonu sallallahu alayhi wa sallam jox nañu temps ci façon bu ne waaye jox nañu temps ci melo bu ne walla melo wu ne soo jëlee am solo gi alxuraan amal solo temps jox ko importance bi mu ko jox dalay xamal ne temps ndeke ndekete xéewalug yàlla la gum defal nit ah waaw waaw subhaanahu wa taala bi muy lim xéewal yim defal nit bi muy lim xéewal yim defal nit def ne ko wa saxara lakum chamsa wal qamar daa'ibayni wa saxara lakum al-layla wa an-nahaar wa aataakum min kulli ma saaltumu wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuuha ca suuratu Ibrahim aaya 33 jàpp 34 professeur yàlla daa wax fi ne bi muy lim xéewal yam defal nit ginnaaw bi nit ne ko defaloo ma dara waaw nit moo ne yàlla defaloo ma dara waaw li nga fi wàcc doyut nanu def sunuy pexe ndax mu doy nanu fexe ba buñ amati aw gone na fi mag ñi nekk ndax li fi yàlla wàcc doyut bu ñëpp ñëwee duñ ko mën a bokk yàlla ne ah ñu ne ko waaw doomu aadama ko wax loolu doomu aadama nit dafa def ay calculam mu ne économie bi day màgg ci un deux trois quatre mu ne doomu aadama yi di màgg ci deux quatre six huit dix wala di multiplier yooyu noonu ko imaam Assane Cissé doon jàngale ca Kaolack ndeysaan rahmatullahi alayhi loolu la nit wax yàlla daf na ko li nga fa ci doyut moo tax ñu wut ay xeeti fexe ba gone yi bu ñu bari wala bu genn gone juddooti waaw wala gone yu juddoo <laughs> na jeeg bu nekk am ñaar ñu ne ndax mooy tax li fi yàlla wàccee doy ndax doyut yàlla di ndeysaan e, xool xool nit ñi amul avocat ñëpp bëgg a d'accord ci loolu ndeysaan ñëpp bëgg a d'accord ci loolu bu buñ jël rek nga summi sa mbubb waaw <laughs> xam naa war nañoo jël kon yeneen avocat seet ba xam ñoom maître ma soxna kan ba xam <laughs> yàlla na yàlla yokk leen wér yàlla nag ndeysaan ngeen baal ma ci waatu ndeysaan bi ndax yërëm tëluwut waaye ci sunu langage la <coughs> mu daat ne wa saxara lakumul wa saxara lakum shams maa leen tàggatal jant bi ak li ci nekk lépp ci énergie waaw maa leen tàggatal jant bi ak li ci nekk lépp ci énergie tàggatal leen weer wi ak li ci nekk lépp ci njariñ daa i bay ni ñuy aylantoo ngeen di mën a liggéey guddi di mën a liggéey bëccëg ndeysaan waaw waaw tabarkalla wa shams wal qamar tabarkalla mu ngoog politicien ba nee na ma bi yonent bi di tontu Abu Talib ca lam bañ na ko waxal loo bëgg nu defal la ko dem na ko woon wallahi ya ammi la wadu shams fi yamini wal qamara fi yusraaya mu ne mu dégg ñu firee ko euh, Senelec waaw ak benn organ de presse waaw ma ne ko loolu xeetu jàngale la ak ak misaal xeetu jàngale la ak misaal mooy yonent bi daa wax baayam ne ko buñ tegoon jant bi ci sama loxo bi ngir neexale ma ko teg weer wi ci sama loxo càmmoñ bi ngir neexale ma ko du tax ma bàyyi lii may woote su fekkee yàlla néew ma bàyyi ko ma ne bu doon tey ñaar ñooñu ñaari post yooyu lay tekki ci njàngale mi gën a jege ba gën koo jegeel suñ mbàkk si li mi naan mën a gën a jege waaw ala kulli xaal wa saxara lakum shams wal xamar daa i bay ni te àdduna si képp ku développé ñaar yooyu ci ngay ci ngay jàpp da ngay fexe ba li jëm ci shams muy lépp lu xeetu ci énergie ak foo ko mën a jële ak fu mën a ame li nu ci yàlla defal xool leen ko rek nun suñu réew mii ngay gis jant bi bët bu set nu gis ko li ci bokk bët bu set nu gis ko yendoog moom yendoog moom muy indi énergie ba dem ñu tanq ca tuuti ne ko ba suba mu del seeti te ay tonni tonni ton lay indi waaye ñun dañ ci tànq tuuti ne ko àddeme waaw ba noppi bëgg a ba noppi bëgg a alxamar muy weer wi ak li muy liggéey moom it ak li nga xam ne moo ci nekk ba tax boroom xam-xam yi bu ñu sànni satelit yi di ko tudde lu mel noonu ko yu ni demee waaye moom it bu ñëwee rek ñu veeye duñ ko bàyyi xel duñ ci def xanaa toog ba mu dem rekk ñu ne ko euh, tabarkàlla njoorawal jàmm yàlla nee na yëmu ca wa saxara lakum leyla wa nahaar mu tàggatal leen guddi geeg bëccëg bi jant bi bëccëg bi weer wi guddi gi weer wi guddi gi wa aataakum min kulli ma saaltumuhu ñeent yooyu bu ngeen ko toppee lépp lu ngeen soxla ci pénc mi mën naa am waaw ñeent yooyu buñ ko exploité lépp luñ soxla ci pénc mi mën na ko mën nañ ko am wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen fi nekkoon di wàññi li yàlla def lépp mu mun leen koo matal mbokk yi jenn laayaa ngoog ci yitt ji alxuraan jox temps waxtaan wi kon jeexut dañoo ak si fi ñu ko war yëkkatee di jéggalu soxna yi di jéggalu sëriñ si di jaajëfal ñu sponsor yi sunu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii taxaw yor seeni këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar ci toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi